comme ni ñu ko waxee mu nekk single euh, bi nga xamante ne Elou def na ko initiateur projet Arlona bi donc lu waay euh, am lu waay mën ah moom la ñuy échanger CD bi mu doon euh, comme ni nga ko waxee loxo xorom pepp ceeb lu waay mënti am rek nga joxe ko donc échange bi ñu lay jox mooy CD bi c'est pour une bonne cause c'est pour les enfants de la rue donc ñu mën ko jàppale bu baax a baax a baax notre dix millième fan puisque nous avons lancé un challenge pour le mois de décembre pourquoi décembre c'est le moment des cadeaux moment de fête mmh. On était à 9990 lundi. Ouais, lundi. Lundi. Et euh, vers la fin de l'émission, on est arrivé au 10 millième. Il est là à, à, à Il s'appelle Madou Dembélé. Ça va Ça va bien. Tel de hein Waaw tey moom tel naa a egg sax. Ñu venu avant 7 heures Non dama bañoon ñëw. tarre wala affaire yooyu jàpp bàyyi moo tax ma def tout pour teel a yeewu ñëw. fekkee affaire bi quoi. gis nga télé nu mu méttee. non métti na wala a yeewu bi nag métti na bon yow moom am nañ après am nañ benn kon am na lu ñu war a régler man ak moom. quoi ah. parce bon je me dama doon fuir samay cours huit yëpp. ndax bon moom rubrique bu mu doon def dama neex parce moom da ko doon def euh, huit heures moins moment boobu la koy def te moom man j'aime la musique quoi. donc rubrique bi chaque chaque instant dama doon taar ay cours huit parce que dama doon xaar rubrique bi jàll ba pare. mais mais tur la professeur yi dégg nga am problème de. non mais bon wees na fi mu toll nii. <laughs> wala ma changer heure bi ah, bon dama koy wax mais bëgguma booy def ni man mais bon mm-hmm. man moom sonaloon na ma lool quoi parce que ah. je <laughs> alors lan ngay def dans la vie tu étudiant da ngay jàng da ngay liggéey. waaw man étudiant la je suis étudiant en première année quoi. Mhm. de sciences. de sciences à l'UCAD. à l'UCAD université oui. foofu méttiwul ak grève yi et tout ça là. bon nous on est on est des débutants bon on sait pas trop ce qui ah, se passe donc bon. On va essayer de voir si ça marche. Bon, on va aller chercher euh, quelque chose d'autre. Et euh, ça fait, ça fait combien de temps que tu, que tu regardes le Good Morning bon naka nga xamee good morning sax balaa. bon d' bon comme ni ma la teeloon chaque fois bu ma doon yeewu pour dem école bon je me réveille je et puis j' attendais mhm. que bon j'aime la musique et vous nous sortez des de nouveau et bon j'aimais quoi. Euh, euh, mais nag dafa am lu am maanaam euh, ndax da nga dégg nit ñëw ne am na émission buy daw 2S. Mhm. wala yow benn jour yaa xëy taal sa télé yem ci ñun. non effectivement bon. man bëgg naa xaw naa bëgg télé mais surtout le matin quoi. Mhm. et si je me réveille je me lave et puis. je prends mon petit déjeuner depuis l'année dernière je je cette année bon pas trop mais avec l'université c'est c'est un peu difficile mais l'année dernière je chaque jour je regardais l'émission. Euh, lu tax nga xaar ba. ñu lancé challenge yu ah, pourtant bon dina xaw a compliqué parce que man bon euh, affaire Facebook comprendre ma ko ça. bon dama jugoon je je suis réveillé j'ai prié et j'avais du mal à dormir donc j'étais sur mon lit bon y bon. sur, sur un profil, j'ai vu quelqu'un qui, qui, a mis un commentaire sur votre page. Donc, j'ai vu qu'il qu y avait 9999. Je me suis dit, pourquoi pas être le 10 000 Bon, <laughs> j'ai cliqué après quelques, euh, quelques heures après, je me suis couché. Au réveil, j'ai vu que bon. Euh, euh Samba m'a envoyé un, message sur. Demba, ok. Mm -hmm. Il a envoyé un, message euh, sur, Good Morning. J'ai vu, <laughs> je sais pas qu'est-ce qu'on a ne la Madi Dembélé 10 millions de francs c'est l'homme de l'année je savais pas quoi après quelques jours j'ai vu quelqu'un m'appeler mhm, j'ai dit mais comment il a fait moom ça s'est passé ainsi c'est-à-dire fi mu toll nii moo xam naa émotion bi moo la jàpp ak non waaw sincèrement parce que je n'y pensais même pas un jour venir ici et puis passer à l'émission que j'ai tant aimé et puis voilà c'est ça en tout bi jeexagul parce qu'on mm dix millième mmh. et ne pas avoir un cadeau. Ça un challenge donc euh, euh, c'est Demba qui va t'apporter tout de suite ton euh. cadeau. Et ce cadeau, il est assez spécial. Assez spécial, mm. voilà. Uh -huh. Ça pleine forme? OK, on va te laisser remettre le cadeau à, Madou. Uh-huh. lan la yaakaar ne moo a nekk ci biir cadeau bu disons significatif boo xam ne yow dina la neex lan nga lan nga lan neex. lu may neex non ba am bàyyi surprise bi jàll parce que moom li may dina jafe pour nga nga ko fi de. Ah, mais mais on sait jamais ah. waxal rek. non nañ ñëw rek lu ñëw baax na ma baaxal la quoi. <laughs> voilà on te laisse l'ouvrir le découvrir. nga wax ñu loo ci xalaat. juste rappeler que ce cadeau a été offert par euh, notre partenaire People Input hein et profiter aussi pour dire que en janvier l'année prochaine il y aura euh, pas mal de surprises c'est-à-dire avec euh, ce partenaire bien sûr des questions-réponses où vous pourrez gagner ce cadeau alors c'est un quoi ah, voilà te nag ah bu vrai bi la. non xam naa foog nga ko tricher quoi. <laughs> alors c'est ce cadeau que nous avons offert à Madou Dembélé. Mm-hmm. comme je l'avais annoncé avec euh, People Input. Mm-hmm. la possibilité de gagner des casques des ordinateurs ah, des. mi ngi nii quoi teg ko nii rek. ah pas de problème. Uh-huh. donc di ngeen mën a gagner ay euh, ordinateur portable ay casque ak euh, beaucoup de choses hein c'est pour le mois de janvier voilà, inchallah ça annonce en fait les changements de l'année prochaine vas gis gars yi gis sa bit yi lii voilà maintenant en tout tu cas, veux sa photo bon euh, uh-huh. je tenais à bon benn dédicace laa bëggoon kii sama maman quoi parce que man gëj naa gis ça fait des années comme uh-huh. mi ngi au Gabon maman Fanta Keita quoi ak moom papa Fajala bon mën naa leen lool quoi. d'accord merci beaucoup. alors merci je te remets ton paquet. Uh-huh. rentre bien chez toi et puis euh, profites-en écouter de la bonne musique. ok Pipeline Pout moo def loolu. merci beaucoup. tu peux rester merci.